waaye nii nu def ci waxtu wii bu tedd bi ci guddi gu tedd gi delloo suñu lépp sëriñ bi loolu rekk moo nu war ci waxtu yépp kon nag noonu rekk la nu gën a góorlu bu baax a baax bu kenn ku ne ci nun bu mu jàpp mukk ne suñu warteef woyof na waxtu warteefu rëy lanu fi sëriñ bi bàyyee al masuliyatul kubra mooy responsabilité bu mag bi nga xam ne moom lanu fi sëriñ bi bàyyee mooy suñ dono amut lenn luñ war a di ko xemmam wala nu di ko jublu wala nu di ko bëgg wala nu di ko wettalikoo lu dul nekk ci lii rek waxtu wu nekk nag rek waaye nag waxtu yi rek ñoo wute waxtu wu ne lam laaj rek nañ ko ko jox noonu rek la demee noo ne ngi sant bu baax a baax nii nii rek la noonu rekk la woon noonu rekk lay deme jërë ngeen jëf na fi yàgg lool waaw waaw sant bu baax te bu baax